war nga koy bàyyi xel amma lu jëm nag ci mm, wane sëriñ bi ak mm, wane ay melokaanam mm, ak lu ñu war a roy ci moom dinañ ko bàyyee ñu nga xam ne ñooy def waxtaan yi ñu waxtaanee ko ba mu gën a yaatu waaye dañoo ñëwoon rek ngir e, xam ne sëriñ Touba ak borom daarul moxti e, dañuy lenn loo xam ne sëriñ Touba moo ko jël lennoo ko. da ko jël defoo ko mu nekk lenn ci moom ba tax na fu fi dara xewee rek faw ki fi nekkal borom Darou Mouhty sa tey sa tey mooy Serigne Abbas ñaan yàlla sunu borom mu may ko kattan ak wér mu yabaloon ñu ñëw teew ci ci Serigne Cheikh ak njaboot gi mu nekk loo xam ne lii itam li nga junj léegi Serigne Abdoul Khadir di kenn ci njabootuk sëriñ tuubaa goo xam ne borom Darou Mouhty amoon na ci moom cër boo xam ne lu ko sunu boroom beral la. muy ak feeñam la cee Serigne Touba wax boroom Daarul Muxti ca ba mu koy wutali aw tur mu doon ak cër boo xam ne cëru boppam la te moom ci boppam mu doon ko dundal ndax bi ko yàlla tegee ci bopp yoonu morit mm, dafa wax ne balaa génn fenn Daarul Muxti lay njëkk te tànkam te noonu la ko noonu la ko defee ba ko doonagutoon it noonu la ko daan defee waxtu wu nekk at mu nekk muy ñëw Daarul Muxti dafa am ay fan loolu lépp nag di dundal liggéeyu Serigne Touba ak benn lay njabootuk Serigne Touba moo taxoon mu doon ko def loolu mu bokk ci anam yi nga xam ne eh, yu ñu war a mën a xool ci kilifa la di ko roy ci moom te ak la nga xam ne mm, bokkoon na ci ay melokaanam koo xam ne kii eh, nit ñi yërmande ji mu am ci ñoom eh, waxtu wu nekk dañ ko daan dañ daan wax ne sax dafa am ñoo xam ne. dañuy dikk rek yor aw kayit ne ko ordonnance la ndax bëgg am ci moom dara mu doon loo xam ne am nañ ci ay firnde yu leer a leer beneen ba ci des mooy lu nit tuuti tuuti tuuti boo ko yëgee li aw xew moo xam ceet la moo xam gént la maanaam du yëg ne moom doomi Sëriñ Tuubaa la mag la faw muy dana la ci yónnee li ñu tax ak ndawtal wala ak bagaan yooyu ñu wax noonu da koy da koy def gis naa ne man mi defal na ma ko defal na ko samay bokk ci Daaru Muxti ay yoon yoon yoon yu ndaw te naa da nga doon am tey ji aw xew te xam nga loolu koo xam ne yàlla weesal na la ko loolu lépp mu doon loo xam ne eh, ak jikko lay doon yoo xam ne ñu war a mën a roy ci kilifa la ngir dañuy dem ba mu jàgg loolu dañ koy ñàkk dañ koy dañ koy ñàkk ndax eh, daanaka yëg googu ak taxawaay boobu am na ñoo xam ne eh, buñ ko dee buñ ca fi ci jamono yi ñu toll day mel ne loolu lu war a mën a ñàkk la te déedéet du lu mën naa ñàkk ci wér am na ñoo xam ne suñ ko defee day aw jàngale lay doon mooy wone ne doomu aadama itteem ju ko ju ko dab ju nekk rek euh, jaadu na yow mi nga xam ne euh, soo ca dugalee sa loxo wala soo ca waxee ñu xam ne euh, ab jàngukaay a ngi nii ab royukaay a ngi nii nga def ko su boobaa loolu moo tax bis bi mu nekk bis boo xam ne bisu yoonu murit yëpp la bisu lislaam yépp la ndax moom am na baat bu mu daan faral di jëfandikoo muy tudd muy muy istiqaama la daan faral di jëfandikoo lu bëree bari te istiqaama lépp a ngi ci ci biir mooy nañu fexe ba nekk ci dëgg di tegu ci siraatal mustaqim di ànd ci dëgg di di e, yi nga xam ne moom la lislaam lamboo muy ñetti xaaj yooyu yëpp nga di ko jéem nga di ko jéem a dund mooy fas ci sa xol wax ko sa làmmiñ jëfe ko ci say cër te loolu mooy imaan islaam ak ihsaan ihsaan jooju nag mooy li nga xam ne moom la ñu gën a war a gën a farataal fii mu nekk nii ci jàngal ko ndaw yi ak njaboot gi eh, ngir mooy li ñuy moom dañ koy dañ koy gaaw a ñàkk ndax ràññee gi mooy des te mooy li nga xam ne da koy def ngir yàlla nga di ko def nga xam ne yàlla mi xam ne moo tax nga di ko def mooy eh, ni ko hadis bi wax ak ni ko Serigne Touba waxee mooy ki koy mooy ki nga xam ne mooy sunu borom soo ko gisutut moom mi ngi lay gis loolu mooy mooy ihsaan te boo ko defee ci jamono ji nga xam ne yomb ci ñi nga jamonoon teel moo di at tasawuf ji nga xam ne mooy mooy li li li sëriñ bi doon dund doon ko dundal loolu ñu ñu ñu ñu xiirtal ci njaboot gi bu baax a baax ndax tollu nañu foo xam ne euh, ci jamono euh, jàngi lay sëriñ Touba. ak ak ak ak ak li nga xam ne moom la waxoon ne man warlul naa leen taalifal leen téere yoo xam ne eh, da ngeen ci xamee seen diine mu def ko moom ba mu àgg kon defe naa ne nag toll nañu foo xam ne li gën mooy njaboot gi ñu fexe ba bi ñu ñëw maa ko waxtaan ak sëñ Xaadim ci oto bi ñuy wax maanaam fi ñu toll jàng jàng du wees bañ koy wax defe naa ne léegi gën a mat a dañ ko gën a mën a dund ndax bu lay neex tey jii léegi nga dal di gis foo mën a jaare bunt boo xam ne lu la rawoon sa diine mën nga koo mën nga koo xam loo mën a sakku ci xam-xam nga koo xam te nag ñu toll foo xam ne foofu la ñu war a mën a fayontee ci yenn yenn wax yi ak yenn jëf yi nii foofu lañ ko mën a foofu lañ ko mën a foofu lañ ko mën di delloowaatee nit ñi moo tax keroog bële dama leen wax dañuy dégg ay wax yu bare bëri yu ñu wax ci fan yi naan lu jëm ci ay ay ñaawteef yu mel noonu waaye hmm, wala yunzinka qawluhum innal izzata lillahi jamian moo di ne wax yi gars yi ak lu mu bari bari ak lu mu nur nur lu bu mu amal ci yow soxla ndax teraanga ak tedd nga sunu borom defal na ko ba noppi kon loolu euh, dara mënu ko faa jëlee